mais fi la jog di attaquer un Cheikh Yérim sek un journaliste mais ni ko Olof Ndiaye di waxe rek tontu du forox da fa jog di attaquer Cheikh Yérim sek way yakarna ni Cheikh Yérim sek nena ko tontu du forox ci bir lolou Cheikh Yérim sek dal dina koy tontu nañu deglu ji la réponse de Cheikh Yérim sek à Ismaïla yassine Yacine. asalaamaaleykum Ousmane Sonko bayil di ma tëkku do yalla da nga ni yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy sa référence yonent bi daawul tëkk kenn. droit asalaamaaleykum Ousmane Sonko bàyyil di ma tëkku doo yàlla da nga ni yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy sa référence yonent bi daawul tëkk kenn yonent bi da daan jàngale ak di xamle waaye daawul tëkku kenn da nga dem ba Casamance di cas di campagne boole di ma gaaruwaale ak di ma tëkku ndax li nga wax ñépp xam nañ ni man maa wax danga nga ni nag li ma wax bu ma ci delluwaatee nga tëj ma kaso préparer cellule bi may dem parce que maa ngi ciy delluwaat nii lii laa wax Sénégal dama ni leen Casamance la fa xew ba nguur gi ñëwee ba léegi dama cee am njàqare ñetti yëf moo tax ma am ci njàqare bu njëkk bi mooy waaye fupp ya fa nekk dañoo yëkkati drapeau Casamance drapeau rébellion bi te dégguma président de la yooyu ci bi dégguma Ousmane Sonko yey ci yàbbi dégguma kenn ku bokk ci nguur gi ko ci yey yàbbi loolu mosul am Sénégal beneen bi ci topp mu am jigéenu tubaab bu dëkkul ci réew mi bind livre di wax ni Casamance dafa war a am indépendance dégguma Ousmane Sonko yey ci yàbbi dégguma keneen ku bokk ci nguur gi yey ci yàbbi il a fallu man ma def émission wax ni livre bi kenn waru koo def dédicace bi Sénégal te ndaw si fixé woon na datu dédicace Sénégal ba ñëpp xam ko kenn waxu ci dara il a ma dénoncé ko pour que ñu ni ñu mujj annuler dédicace ba daal di dootul amati ba pare daal di tere pour ñu jaay livre bi Sénégal ma ne loolu njàqare la ci man ndax livre bu mel noonu kenn mosoo xalaat bind ko ci suufu Macky Sall wala Abdoulaye Wade beneen bi ci topp ma ni général Kandé nga xam ni moom moo duma way fipp yi ba indiwaat jàmm ci Casamance nguur gi ñëw ñu yóbbu ko ñu yóbbu ko Inde affecté ko ma ne loolu njàqare la ci man mais bu fekkee nag Ousmane Sonko loolu tax nga ni man da nga war a tëj kaso demal ci Google wala YouTube nga bind affectation générale kande nga xool intellectuel Sénégal yi liñ ci wax xam man dama ne damaa am njàqare rek waaye demal Google wala YouTube nga def affectation général Kandé nga xool intellectuel maanaam boo may tëj tey di nga tëj au moins deux cent wala trois cent intellectuels sénégalais yoo xam ne la ñu wax man jàll na bu baax li ma wax mais sa sa tëkku yi dafay wan rek singali bi ma singali tey leer na nàññ ni bi nga may yóbboo deux jours garde à ñi lay waxal naan du yow tey leer na nàññ ni danga ma singili te li nga bëgg taxaw ci temm mooy dugal ma kaso nee nga dinaa dem nëpp di nga ma tëj rëbës ba ma nëpp loolu nga wax Ousmane Sonko respecté justice Sénégal ngir yàlla yow premier ministre yaay tëj nit ñi ba ñu ba ñu ba ñu ba ñu ba ñu ba ñu ba ñu ba ñuy ba ñuy ba ñuy ba respectel justice sénégal justice sénégal ay maestra yu am yu am valeur ñoo fa nekk ay nit ñu baax ñoo xam ne école bi nga génne lañ génne xam nga ëppale woo leen dara nga taxaw yow en tant que premier ministre yaay dama ku ko def da ngay dem prison mel yaay tëj nit ñi te loolu mooy liggéey bi nga xam ne justice sénégal moo ko war respectel justice sénégal ngir yàlla ba pare ousmane sonko affaire kandé bi bu fa amee kenn kuñ ci war a topp yow ndax da ngaa wax lu garaaw garaaw garaaw da nga ni li tax ñu affecté Kandé ko wax de dafa am rapport boo fi fekk boo xam ne la nga wax ni moo nekk ci rapport ba sax man sañu ma koo waxaat parce que li nga wax ni moo nekk te loolu moo garaaw pour kaaraange Sénégal xam nga da nga ni man li wax li la ci metti mooy day laal kaat li wax man non seulement laalal kaaraange Sénégal day défendre armée bi waaye yow li nga wax loolu moo laal kaaraange Sénégal moo li nga wax ni moo nekk ci rapport ba man ko ko mais bu fekkee ni kenn lañ war a topp ci yëf yi mooy yow parce que rapport boobu. su Cheikh yirim sek ginnaw Ismaïla yassine bim ko tëkkoo foofa ca Ziguinchor ginnaaw nag lépp loo xamante ni ñi ngi ko don wax jëmale ko ci livre bobu nga xamanteni dafa don laajte autonomie de la Casamance ki di ben tubab di doomu nasaraan di Séverine Awengo d'Alberto bind ko ba noppi ba def cérémonie de dédicace bi fi ci Ndakaaru ginnaw lolu Cheikh yirim sek am ay kaddu yum ci yëkëti won daal di alerté bala Cheikh Yérim Seck ñoom Thierno Alassane Sall ay général Seck daal dinañ ci wax lo xamanteni day menacer intégrité territoriale bu Sénégal ci biir loolu dal ci Casamance

li mu gis ci livre boobu Sévérine daal di koy def ci loolu daal la daal di wax li nga xamante ni dafa menacer intégrité territoriale bu Sénégal tey jii waruñu nangu benn tubaab di ko bind ñëw di ko présenté fii ci Sénégal ginnaaw moom moomu di tubaab bi ñemewul dem foofa ca France daal di naan Écorce dafa war am indépendance wala République dominicaine dafa war bés bu ko defee Macron tëj ko ne nit sañu ko woon def ci eeru Macky Sall nii ci Abdoulaye Wade nii ci kon donc gis nañ livre boobu ba tey mu amee gisuñu benn autorité ci gouvernement bi daal di ciy wax ba ginnaaw ga si la ñu 26 octobre lañ ko waroon def fi cérémonie de dédicace ci série ci librairie les quatre vents bi nek Mermoz ginnaaw lolu si lañu renoncer ci renoncé bobu mom Sévérine brandir woon na ben plainte ñëwaat ci walu général Kandé parce que dafa né général Kandé lu mu liggéey tay ji nga xamanteni moy mooy Casamance raxas ko ba mu set wéj ñu affecté ko fofu ci New Delhi ci Inde donc lolu aussi war nañ ci xoolaat nee na ko tapé Google nag di nga que lu petit ci intellectuels la ñu wax moo raw fuuf moom Cheikh Yérim Seck lu mu que 200 intellectuels ak moom mi ngay boole ndoo leen jamono ji aussi ñàkk respecter justice moo tax un premier ministre du justice du avocat du procureur du dara taxaw di nan damay tëj doomu adama donc ce qui veut dire que bagn koy japp deux jours en garde à vue Mon ci boppam mo mon woon Cheikh yirim sek à quoi Cheikh yirim sek dérange ce nouveau régime en tout cas je pose une point un point d'interrogation pourquoi Cheikh yirim sek mi dérange ce nouveau régime est-ce que Cheikh yirim sek dafa xam lumière bi diko indil di talal sénégalais lamp yi alors que bëgguñu lamp yi en tout cas ay substitution lay def muy ay question yu may lacte di posé pourquoi ñu singale Cheikh yirim sek qui est un journaliste ku nekk xam nañ kam Cheikh yirim sek c'est un journaliste d'investigation fi mu egg ci information journal su bëri egguñu fi ci information tay carnet d'adresse am lim ko permettre par rapport ak ñimu fréquenté ay chef d'état ci Afrique ak Europe ak aduna wërngal kep ak limu xam ci ay droits de l'homme donc est-ce que du loolu moo tax ñu Cheikh Yérim Seck dal di tal lampe yi wala dafa am benen cas bo xamante Cheikh Yérim Seck mi ngi koy def di déraper en tout cas ma fay samp question di laajte point d'interrogation la fa def ma ngi laajte lan mo fa xew donc Cheikh Yérim Seck lu muy wax ñak respecter justice yi ndaxte dañu am ay magistrats yu digne am ay magistrats yo xamante bañuy jang xewoo kon ñoñu ñoo war def seen liggéey so soo taxawee sénégalais né man maay tëj donc dafa mel yow yaay justice yow yaay tëj yow yaay tëj ak ban pouvoir mo lako may Cheikh Yérim Seck daal wat na tontu ki nga xamanteni moy general ci affaire general Kandé mom limu ci wax. mom limu ci wax lolou mo menacer li nga xamanteni moy suñu intégrité parce que wax na ci lo xamanteni Cheikh yirim Seck ñemew ko wax ku nekk dégg na ko vidéo bi nga xamanteni mom ci bopam wax na ko ci walu general Kandé lu tax ñi affecté ko dañu fekk ay rapport biñu ñu dañu fekk ay rapport li nekk ci biir rapport nak mom moko wax mom mi Ismaïla Yassine

Cheikh Yérim nag néna lolu mo moo menacer intégrité en tout cas ni ko Olof Njaay di waxe rek tontu du forox nañu bayyi menace yi bayyi justice def liggéeyam du ben nit mo fi tok manam ku bëgg ta lampe yi rek nee na lamp yi dang koy fay baba yobul ci kaso bi je crois que su lolu la je crois que cellules dina fess del del del del del del dinañ tijji ñep sénégalais nak ñoy xol xool ndax dañuy nangu dictature bi ñu teg leen ko ñu dellawaat Sénégal ci royaume ou pas en tout cas le rendez-vous est donné le 17 novembre que chaque citoyen sénégalais prend sa responsabilité jëmele ko ci li nga xamanteni mom lañu jëm ak li ñuy gis lo xamanteni kenn mësu ko gis mooy mooy wax chaque fois rek gis nga parfois nit ki di nga top sa xol ba def li nga xamanteni mo lay lor alors que sénégalais yi top sen xol mere Macky Sall ci lepp lo xamanteni ay manipulation la ba tay ñi def li nga xamanteni tay mo len di lor du jamais vu dans ce pays en pleine période campagne électorale yow nga taxaw di menacer ay nit di xupp ay nit naan da nga di tëj ba ñu nëpp tëj ba ñu nëpp nëpp nëpp wax deug yàlla su dee référence bi sayyidna mohammed sallallahu alayhi wasallam sax waro yene nit nee sama pire ennemi man yene moko kasso

kon donc je crois que ñoko ko do muy réponse ki nga xamanteni moy Cheikh yirim Seck jëmele ko dal ci tekk bi nga xamanteni Ismaïla yassine dal dina koy tëkku foofu ca Ziguinchor ba tey dañuy ñëw ci li nga xamanteni dal moy nomination ki di Samba Ndiaye PCA SNHLM mu bokkon ci ñi nga xamanteni tay mo nekkon ci régime Macky Sall ginnaaw loolu nag am nay ay